inna alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñuy siyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd yi ak bis bu tedd bi ñuy dëgmal loolu nag moo waral daayira Muxaddamatul Xidma ñu xam ne ñoo feetewoo ci jumaa ji ak li ko wër ak yeneen liggéey yu bari ñu tàmbali wàccaayu bis bu mag boobu ci yëpp xeetu wàccaay mu eh, ngi jub fan yee ci ginnaaw defoon nañ ndaje bureau bi bu defee commission bu nekk xam li mu war a liggéey ci màggal gi mën koo waajal ba alhamdulilah am na ci liggéey yoo xam ne sax far na tàmbali bu mel ni liggéeyu commission organisation bi nga xam ne ñooy nettoyer ñooy setal te ñooy defaraat ñoo gën a féete ci biir jumaa ji tam ñooñu tàmbali nañ seen liggéey ci wàllu setal ak defaraat ak gën a xayal ba ñu tàmbalee ko nag ci fi borom liggéey bi nekk muy ci barab bi danañ fa def ñett fan incha allah ko génn ci biir jumaa ji am fii lu juróomi fan muy juróom-ñetti fan yaakaar naa bu ñu ko defee seetal gi ak xayal gi ak defaraat yi bu àggut tam lu ci des ci bari loolu ñu mën a songaat yeneen liggéey liggéey yi ci màggal gi bari na yi xam ne moom la Moukhaddamatoul Khidma war a ci bari na lool lool lool lool ndax gan yi ñëw ñoo leen war a teeru ci jumaa ji ànd ak ñoom ba leneen tax a ñu am ko muy siyaar sëñ bi def seen ñaan def seeni i sikkar ak ni ñu ko bëggee rek ñu ànd ak ñoom bañ def ko ni ñu ko bëggee ci jàmm ci kaaraange ak ci mucc bu ko defee tam loolu dana aajoo mbooloo mu bari incha allah loolu moom bàyyi nañ ko xel bu baax a baax teewut tam biir wàcc biir daayira bi am na ay yeneen liggéey yi ñuy def ci biir. màggal gi ak yeneen wàccaay lu mel ni wàccaay bu jëm ci xam-xam xam danañ def ay waxtaan lu mat juróom-ñett yoo xam ne ci biir jumaa ji dañ koy def ngir wàccaay waajale ko màggal gi ku ñëw xam lu bare bare ci li nga war a xam mu doon ab yóbbal boo xam ne ñëwee ñoo tax a jóg gën yomb ci yow danañ ci am itam benn waxtaan boo xam ne day doon bu mag a mag boo xam ne dañ koy woote mu mag lool boobu tam ci wàccaay màgg bi am na itam xaaj boo xam ne ñooy dalal gan ñi nga xam ne ñooy nekk ci ñaari kër Sëñ Tuubaa yi kër gi ci jumaa ji ak kër gi ci Daaru Manaan gan ñi ñooy ñan mooy gan ñi nga xam ne ñoo bokk ci yeneen tarixa yi di ay kilifa diine ñu seqal réew mi ñu seq ak ñoom diine ji rawatina yoonu tasawuf ñooñu bu ñëwee waa daayira bu ñoom ñoom la sëñ bi tànn ñu dalal leen ndax seen comportement ak seen melaw ak seen teggin sëñ bi daal gis na ne seen melaw ñoom waa daayira Moukhaddamatoul Khidma moo tax mu bëgg ñu di ko teeru gan ñooñu di leen ko tatagalal di ko di leen ganale nga xam ne diiru màggal gi ñoom ñoo leen di yor ba màggal jeex ak yeneen liggéey yu bëree bëri. ko defee tam lu mel ni communique daayira bi am na commission bu tudd communication moom itam ah, liggéey bu rafet lay def ci màggal gi waajal na ay matériel am ay yëpp bépp activité bu nekk bu am ci jumaa ji da koy def direct nit ñi mën ko seetaan lépp lu ñuy def ci kër Sëriñ Tuubaa mu aju ci màggal gi tam da koy def direct nit ñi mën ko seetaan ba nga xam ne ku amoon yéene ñëw te mënoo ñëw boo bokkoon seen i jumtukaay da mën a seetaan lépp am na itam beneen commission bu ñuy wax sociale ak relation extérieure ñoom itam xam nga ni jamono demee wàllu wér-gu-yaram daa am solo ci màggal gi ñoom itam wàññi ci wàccaay bu am solo ba nga xam ne fii ci biir jumaa ji am na fi ab fajukaay boo xam ne incha allah dafa war nekk lépp dana fa nekk képp ku ñëw ci jumaa yi. nga am yitte bu jëm ci wàllu wér-gu-yaram bu soobee yàlla danañ la saytu bu baax a baax a baax loolu na maa ngi ciy profité di siyaare waale ak nuyu waale ak ndokkeel waale murid yi nga xam ne ñooy safoo Muxaddamatul Xidma di participer ci Muxaddamatul Xidma ak fu ñu mën a nekk rawatina waa bitim réew te di ko jaarale nag ci ci ñaasoon Jóob mi nga xam ne du tàyyi du sonn ngir liggéey bi moom yàlla ko yàlla fay. waaw di bañ a guddal di ñaan suñu borom rek ñu tàmbale ko ci alhamdulilah rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilah rabbil alamin ba mu ànd ak lépp ngërëmu Sëriñ Tuubaa tawfiix ak taysiir ak aafiyatu daarayni barke borom Tuubaa jërëjëf